ay ministre ak co au cadre qui li l'administration générale du Sénégal l'administration régionale l'administration territoriale l'administration communale di sa mbokk yu baax yi nga fekk ci salle bi ñun ñëpp di njabootu cheikh aboubacar si mohamadul mansour sama doomu trondo man ak cheikh alxaaji mansour mbay mi doon wax léegi ñu tudde ñu bàyyam radiallahu anhu wa an ixwaanihi góor ñeeg jigéen ñi di njabootu sëriñ babacar si mohamadul mansour mu ànd ak ay rakam di sa ay mbokk di sa ay soppe al xaaji malik si abdul aziz ak sama mak sama kilifa serigne babakar abdul aziz di sama serigne ak sa mbokk yi nga xamni ni jigen ñi nga fekk ci kër al xaaji malik soxna amine tassi bu serigne babakar si soxna safiyatu si bu serigne babakar si soxna roqiyatu si bu sëriñ Babacar si njabootu si di ahmad si ca ndarak ca Thiès waa kër soxna safiyatu ak kër soxna maam mu di njabootu Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour soxna far si nekkatu fi yal na yàlla yokk leeram magu xalifa bi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 سخنا اي دسي دباخ دي سخنا خليفه بي سخنا دسي دباخ مودي مودي واو دا فام ايكو مودي سخنا سفيتو سي حبيب اك اي رقم سخنا ام كلثوم اك مام فاما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 Sidi Ahmad Sy di taawam ak Mam abdi Kamal ak Mam Bas Mam Basin si, ñi ci sa gannaaw ñoom ñu ngi fi ci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 gis naa fi lenn ci seeni sët muy alxaji Habib Sakho di sëtu maam Iliman Sakho waa kër sëñ aliun Gueye sëñ Moussa Niang sëñ Hadi Touré waa kër sëñ Birahim Diop ak alaaji aliun Diop di magam alaaji aliun Diop di bàyyu alaaji Mansour Diop kungel ñooñu ñëpp mën nga ni nation lañu loolu day répondre rôle qu'il faut jouer dans une société dans une famille dans une nation dans le monde entier ndax Yalla moo ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun min al mushrikin shakiran li an'umihi ijtabaahu rabbuhu wa hadahu ila siratin mustaqim Nena ibrahima maamu yonent la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 mi ngi lay gërëm di la sant wax na la ko wax na ko sëriñ Habib jarbaatam doomam wax na ko doomam yu baax yi ak rakkam yu baax yi muy sëriñ Cheikh Abdoul Aziz sëriñ Cheikh Mouhamadul Mansour sëñ Babacar Abdoul Aziz sëñ Moustapha Abdoul Aziz sëñ Abdoul Hamid sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane ba ci sëriñ Sidi Ahmed ak ñoom soxna maam Fama fa tabaarakallah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 serignam ak ak soxlam ak soxlam te soxla si Maam Alaaji daraludul, amu ci dara soxla viabiliser vulgariser consolider maintenir progresser l'appel de Seydina mohammed sallallahu alayhi wa sallam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 du Seigneur Allah subhanahu wa te nee loolu yàlla ci boppa moo ni inna allaha naka yàlla binnaasi ci nit ñi tudd ca confession religieuse tudd ca couleur de peau kudd tudd ca culture tudd ca benn ethnie ولا بن جروب ولا بن جروب بوليتيك ولا بن جروب سوسيال الناس لا من اسم جامع لخلق الله من بني ادم نيونيو الله رؤوف رحيم بهم ان الله بالناس لرؤوف رحيم موتاخ كو يالا دنك رك يا كوي دونو تي لولوغا خامني مو يرم نيت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 la république nga respectée. Et la république véritablement moy, lo xamni de dafa ëmb ñëpp ambu ci xajj ak seen noonu nga ci taxawé la ci yàlla jàppale te nee na ba bi nga demee ci tribune des Nations Unies temps yi suivre avec intérêt et attention discours magistral ba nga fa def pour plaider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

le Sénégal muy Tivaouane ak feneen yaa ngi ci ga way formation professionnelle pour ñu génn ci daara yi ku mënul dem ba université ñu former la en bonne et due forme sur le plan professionnel balaa yàgg nga mën am métier mëna liggéey mën ci am dara pour téral sa ndey sa bay mëna samp kër. fii ci sëñ Babacar Aziz na fi. Ben association professeur Bachirou Ngom docteur Sëtu Rawan, Rawaan et ak professeur Makumba gay professeur en médecine ak maître Pape Sambare Diop mi nga xamni notaire la yenen cadre a ngi ci am sax luñu en période de balbutiement ci former xalé yi ci agriculture ak yenen métier lolou tam war nañ la ko xamal